alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu bi jërëgeen jëf mbokku internet yi mbokku téléspectateur euh, Kossy TV ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa liggéey bi dooraat na waaye tey nag euh, spécial euh, spécial ziara Cheikh Yékini Thiam la ndax tey jii nii dafa fas yéene ñëwal boppam gannaaw boo xamante ne nii liggéey bi door na ba léegi njaboot gi ñooy toggal képp koo xamante ne rek yaa ngi yeewoo fii si eh, liggéey bi waaye nag tey dafa dikk ngir lan ngir joxewaat exemple waaye ngir lan wanewaat ne Mawlana Cheikh Ibrahim saa su ootee rek kenn amatud ngant waaye rawatina moom mi nga xamante ne nii amul benn jot ndax lépp rek mu ngi si liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim waaye tey nag dafa si taxawaayu jëmmam ci biir liggéey bi nga xamante ne tey moo nekk grand travaux bu xalife bi jël teg ko si loxol président Baye Ciss euh, Seyda yaa ne na ci am mu noonu di dugg si waaye mu ngi dugg si ak euh, dugg si bu métti te mbooloo mi yëpp ñu ngi ko dara di ko ziyaare di saafante ak moom ziyaara dimanche yemboo ko juróom-benn fan si weeru août nekk bés boo xamante ne ni àdduna yëpp rek ñu ngi teew fii nii si bayaalu Medina baay bi ngir yokku seen euh, mbëggeel si Mawlana Cheikh Ibrahim waaye nag rawatina njaboot gi ànd ak sayxaya uh, ne na ci am ñu ngi leen di béggée bu baax di kontaan si ñoom gannaaw bu àndeek moom fas yéene mu dugg si biir uh, maktab bi dugg bi métti na comme ni ma ko waxee Seydina Aliou Guèye ñu ngi am mbégte bu baax a baax tey sëriñ bi moo déplacé wu ànd uh, njaboot gi waaye moo déplacé wu ànd ak lu takku ngir mu ñëw yokkaatee si liggéey bi nga xamante ne moom la xalifa bi oote gannaaw bu mu ba léegi rek waxtu woo xamante rek ñoom dem nañ fa wala moom ñëw na fi rek mu ngi ànd ak ñoom si liggéey bi waaye di ndokkeel équipe bi nga xamante ne nii keroog ba travaux yi commencé ba léegi rek ñoom ñooy toggal waa euh, liggéey bi kon dëgg-dëgg équipe bu waañ yëpp ñu ngi leen ci ndokkeel di leen euh, ziyaara Seyda mu ngi noonu dugg si na si biir maktab bi waaye fii nga xamante ne nii fii la commission bi nekk xam ne képp kuy andi sa euh, barkeelu rek si liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim bi fii ngay jaar kon Seyda ñëw na fi moom tamit andi fi barkeeloon waaye lu si taalibe yi mën a xam ak euh, sopp yi nga xamante ne ni ñu ngi ñuy bàyyi xel ñun ñuy jàllale wàllu liggéey bi ak yeneen si xibaaru Seyda yi kon Seydina na Guèye xam naa dañ leen di bàyyi rek nga ki nga xamante ne ni ñoo yor wàllu euh, travaux yi fii si liggéey bi ñu daal di dalal ki nga xamante ne tey moo nekk Sayxa Yandé na Thiam si taxawaay bu am solo bi nga xamante ne nii def na ko comme ni ma ko waxee rek euh, dimanche euh, ak yemboog juróom-benn fan si weeru août ñu ngi si ndokkel képp koo xamante ne rek yaa ngi si biir réew mi ak ci biti réew kon ñu bàyyi leen ak bi nga xamante ne ñoo wàllu liggéey bi ñu dalal see. daa incha allah président Baye mu nga xam ne moom la sëñ bi dénk liggéey bii nga xam ne àddina bi yëpp ñu ngi jug di njëkkalante di fi ñëw. si façon boo xam ne wax dëgg yàlla bu taxawut léegi tey liggéey bi lu ñu si bëgg yëpp mu am ko tey nag ñu am fi gan goo xam ne mën naa wax ne mooy yaayu liggéey bi liggéey dafay am baay dafay am yaay comme nit ni mu amee yaay di am baay alxuraan ne min kulli shay'in xalaqnaa zawjayni nit ku nekk dañ lay amal yaay amal la baay liggéey bii nii ñu am fii si bayaal bi si ndigalal xalifa bi suñu waajur Cheikh Mouhamadul Mahi ku wax liggéeykat dana soxla dana soxla naan dana soxla reer dana soxla lu nekk ñu am koo xam nag spécial ba liggéey bi commencé ba léegi loolu moo ko toggoo di ko def amut bés bu manqué muy Seyda Adjaratou yaa nee na Thiam mu ngi nii teew demoon nen fa ànd ak président Baye Ciss ak suñu papa Cheikh Mouhamed Siraj Diine Cheikh Seydou mu ngi nii am may ngi sax si sama sëñ daam ñëpp ñu dem si këram yëgal ko liggéey bi ndokkeel ko ziyaare ko mu yónnee woon 30 tonnes tegaa si 20 muy 50 ton yoo xam ne indeegum na ko si liggéey bi Baye Ciss ne ko liggéey bi kat dañoo am ay gan yu ñëw jookoo ngodi ba dañoo bëggoon fan yu ñu fi am nga ñu demandé yow nga bàyyi leen xel si affaire yi añ ak reer mu ne ko loolu sama barkeelu la man si liggéey bi bàyyee ma ko Baye Ciss ne ko déedéet dama la ñaan rek man tamit nga bàyyi ma ma barkeelu mu ne ko déedéet yow jox nañ la liggéey bi am nii nga amee ko mën tamit bàyyee ma lii muy sama xidma si liggéey bi keroog bés boobu mu wax ko ba tey jii mësta manqué bés boo xam ne añ bu ñëwut wala ree bi ñëwut ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la wax na sa doom jii nag dinañ ko gërëm bu baax a baax moom lañu ñu oo guddee bëccëg di ko laaj di ko soññ di wax ak moom waaye heure boo waxee moom bala ngaa coupé rek añ bi egg xam nga léeg-léeg nga am ay gan siesise ñu ñëw si liggéey bu ñëwee bu këtee jotee rek ñu laajte añ waaye booy oo sàmb rek bala ngaa coupé añ bi egg si ba nga mas ay maas ba nga coupé rek añ bi egsi ñu ngi gërëm maas fi dem aj dem omra dem fu nekk waaye mu ngi taxaw takkaayu moom ñoom Saliou Lo ak mbooleem si façon boo xam ne wax dëgg yàlla soo fi nekkee tamit ak la def nyom ag nyom lu def dara uteewut ut, dëgg caam ñu ngi lay gërëm bu baax a baax wax dëgg su fekkoon ne amne nyume ñu mel ni yow fukk rek laa wax konoon amul kenn ku si liggéey bi di am problem, wae wax dëgg yàlla danañ la gërëm bu baax sant ndax dafa am lo xamne ne yombut bes bu nek yombut de par par semaine par wer jafewut waaye bët bu set yombut te wax dëgg yalla bët bu set ya yone fi añ ak dëgg dëgg buñ ko waxut si bési tay bi nga xamne ne mbolo la adna bi yëpp xam ko su boobaa am lu dess suñu ak suñu borom moo force ñu feñal ko di la ñaanal bu baax baax ci turu suñu papa Cheikh mohammed sallay mo xamne ne fi tew comme représentant serigne bi waaye comme assistant ci Baye 6 waaye ñun Cheikh Diéry ñu fi ak Ama Nges ak Cissé Sëñ Daa moo xam ne daanaka mën nañu wax ne mooy porte-parole liggéey bi jiite communication bi munti mu ngi fi ñuy gërëm ñëpp ñoo xam ne teew neen fii ak ñun Cheikh Abdallah doomi alxalifa Cheikh Mouhamadou Maye ma nga ne ne la ko defoon tamit kaw diwaan bi passé dafa summeeku futteeku du liggéey tey tamit ñëwaa na futteeku liggéey Cheikh Ibrahima Ndiaye mu ngi fi bayam sëñ Maahi Hadim Pape ñu ngi fi bàyyi seen itte ak Cheikh Baye mu Pape Mounzir mi nga xam ne moom tamit kenn la liggéey liggéeykat bi ñëpp a ngi fi ak bàcc mu nga xam ne dafa nekk suñu xarit di ñëw di liggéenti liggéey bi fu mu ak lu manqué loolu yëpp moom tey mu ngi si bàcc ñu ngi koy gërëm ba di sant di wax ndaa yaa nee ne bu ñuy wax deneen juum ndax lu ñu war a wax suñ diggante ak yow dafa bëri te lépp nekk lu rafet dëgg-dëgg ñu ngi lay sant beneen yoon di gërëm sa mbooleem taalibe nag mu mosuñu fay ñëw indi fi añ warante fi war ñu xuloo ñu bëggee rek noonu la ñuy defee yekk leen ñu yekk taxaw leen ñu taxaw def leen ñu def wax dëgg yàlla xam na ne yar nga leen lool yàlla na la yàlla dimbale yow tamit yàlla yokk sa fan lool yàlla barke sa njaboot defal la jàmm sàmm la sàmm njaboot gi lépp loo bëgg rek yàlla na la ko yàlla yombalal si barke Baye wax dëgg yàlla kontaan trop dañuy jël kàddu gi rek delloo ko suñu mag sëñ Aliou mu sëñ daam mu sànni si ay baat su paree sëñ Cheikh mu fii dana wax Papa Saay daal di ñaan wala ñu jox maas fekkee ne am nañ ay kàddu ñu sànni ñoom sëturu ñu sànni jox ñu kàddu gi ñu sànni ko suñ paree ñu orienté kàddu gu nga xam ne moom leen war a wax dañu njëkkee si Baye Mass dañu njëkkee si Baye Mass mu joxe ay kàddu si turu soxna si su paree ñu mottali kàddu gi Mass bisimilah. ma mënta ñàkk mënta ñàkk waaw taxawal fii tayib taxaw waaw ñëwal taxaw na bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooleem ñiñ fekk si salle bi waaye ñu ngi nuyu mbooleem ñi ne ci liggéey bi yëpp gan ak dëkk di jël nuyoo boobu di ko si loxol ki nga xam ne tey moo teew fii teewal fii alxalifa Cheikh Mahmadul Maahi di suñ sëriñ di suñ wayjur Cheikh Mamadou Siraaju Diin di ko nuyu di ko jox nuyu Cheikha Zeyda ya ne Thiam ak mbooleem njabootam yëpp mu joxal ko ko mbooleem njabootu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass góor ñi ak jigéen ñi. nee na mu ngi nuyu ki nga xam ne moom la xalifa bi teg liggéey bi ci loxoom muy le président Baye Ciss di nuyu équipe bi nekk gannaawam yëpp ku ci mel ni. Cheikh Serigne Aliou ibnu Cheikh Ahmad Dam ibnu Cheikh Ibrahim ku si mel ni Seydi Ahmad Niass ibnu Cheikh Ahmad Dam ku si mel ni Cheikh doomi suñ baay Mouhamad Mounsir ku si mel ni Seydi Tayib doomi suñ baay El Hadj Mouhamad Niass ku si mel ni Cheikh Ibrahima Ndiaye doomi Cheikh Ibrahima doomi Seydi Ousmane Ndiaye ak ki nga xam ne tey Baye Ciss moom la ñu boolee démb si téléphone nañu su ngeen xëyee ngeen dem daa leen boolente ak Cheikh Jéeri mu accueillir leen recevoir leen ngeen jëflante ak moom li nga xam ne te bii noonu laa ko bëggee bon Cheikh Jéeri ñu ngi lay nuyu turu sëriñ bi du nuyu Thierno Diallo Bilal di nuyu mbooleem équipe bi ànd ak Baye Ciss yëpp di nayu suñ soppe bële di Alaaji Bàcci Mbaay di nuyu mbokk yi yëpp ci turu sëriñ bi di wax ne ñëw nañ ànd ak Cheikha ci liggéey bii nga xam ne liggéeyu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass la moom Baye rek la bëgg yëngatoom ak dalam yëpp Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye Niass la tey nag mu ne damay dem barkeelu si liggéey bi moo tax a jóg fekk mu yónni woon ñu man ak président El Hadj Saliou Lo mi nga xam ne mooy président fédération daayira kër gi yëpp ak Cheikh Matiyaani Diassé président président daayira Gambie. ak njaboot gi nekk si gannaaw yi yëpp mu yónni woon ñu pour ñu ñëw fii si beneen ñëwin waaye biñ xëyee mun a demaay dem si liggéey ba man laay jëm yéen ngeen dem sëmi la ma leen yónni ndax loola man taxul maa jóg baay mënoo koo jëfal dara loo ko jëfal fekk fa ko ëpp lii moo waral ñu ànd ak moom ñëw biñ ñëwee moom naroon na dugg sax si fii ndax bëggut média yi wala dara ñu koy wane ndax moom nee lépp lu muy jëf de monsieur Ibrahim rek tam koy jëf waye nag gannaaw Baay radiyallaahu anhu moo ñu xamal ne jëf ci yàlla amul ngistal motax ñu ànd ak mom ñëw fi ziyaara ci len nuyu si leen nee mu ngi ndokkel nak bés di tay ñi nga xamne ñom ngeen sédé ligéy bi o len tay muy këram sëriñam kër mamam kër bayam مولانا شيخ ابراهيم فال سكوسي nga xamne mom mi doomi maam Ibra Fall la da maam Ibra Fall waxoon ne ko yow suma doom nga mu taxaw ci taxawaay bu rafet ci biir kën maam Ibra Fall nekk koo xam ne kën maam Ibra Fall kenn du ko fa laajte si xin ma ndax moom nee na dafa tànn jëf ka wax nee na daal mu ngi nuyu kalifa yi yëpp di ziyaara xalifa bi di ko ñaanal yàlla di sàkku si moom ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla dimbale ko dëgëral ko yàlla kàttan na ko ko may ko wér di jël nuyoo ba di ko ki nga xam ne tey mu ngi fi teew di Cheikh Abdoulah ibnu Cheikh Modou Mahi ndax maam alaaji moo ñu waxoon ne doom firi doom daay firi du moomam nee na mu ngi nuyu papaam sëriñam Cheikh Modou Mahi Cheikh Ibrahima Niass al Khalifa di nuyu papaam xaritam sëriñam Mawlaaya Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Seydi Aliou Cissé al imam di ko ñaanal yàlla jàmm ak wér ak fan. mu yàgg fi loolu ko yàgg fi ak jàmm ak wér di nuyu porte parole lu pays bi di Cheikh Mamadou Mahi Seydou Aliou Cissé di nuyu mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim gépp Seyda Roqeetu bintu Cheikh Ibrahim ak mbooleem njabootu jigéen gi ñëpp Zeyda nee na mu leen di nuyu di leen ziyaara si bés bii nga xam ne bésu xidmal Cheikh Ibrahim la di ndokkeel nag équipe bii nga xam ne ñoo géré liggéey bi si njiital suñ sëriñ suñu boy jur Cheikh Mamadou Siraju Diin Ibrahima Niass ak ki nga xam ne moonte liggéey bi si loxoom muy la président Baye Ciss ak mboolem équipe bi mu àndal lépp Zidane na mu leen di ndokkeel mu leen di gërëm mu leen di ñaanal yàlla di sàkku si yéen ñaan yàlla daa iman la mu waxoon ak yéen sa saalam ba keroog ba ngeen ñëwee si premier jour ba liggéey bi ànd ko ak Cheikh Diéry Cissé mi mu ne leen dinaa si def fas naa yéene incha allah rabbi lépp lu fa ne di lekk si añ ak si reer toggoon ko ba liggey liggéey bi ñu ko inauguré nee ci si loolu la nekk du ci arrière insha allah rabbi mu ngi ñaanal ñëpp nak di ñaanal mboolem julit yi rawati na mboolem talibe yi yàlla defal leen jàmm defal leen sutura liggey bi ag ci jàmm bañ inauguré ko ci jàmm ba sémb yeneen liggey ko bokko ko khalifa bi ak imam ak mboolem njabootu pey bi ndax mom pey bi rek la xam bay rek la xam njabootu bay rek la xam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جليدي مبكي طالبي نيجي نلوي كأنه كونكتور مجمم ديجيتال تينوروي سن باجي توك شيخ محمد سراج الدين ابن شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس ديجيتك الحاج شيخ تيجان سيسي جيري مين خام نتاي نيوم نيارني نيوم في أوتو بريزنا بايسيس كي أوتو كو أدمينستراتيفما كي أوتو كو ريليجيزما ñu ñi ci des ñu nekk fii di ko jàppale ci liggéey bi tey nag ñu am fi gan gan gu spécial comme ni ko Cheikh waxee nga xam ne bañ tàmbalee liggéey bi avant ñuy gas dara ñoom moom la woon ba mu toll fii tey wax dëgg yàlla am mosul teggi tànkam mosul yox yi dem nañ ba miin xale yi nga xam ne sax ñoom la fi ebal parce que koy gis pendant deux mois chaque jour nga gisanteek moom bu yàggee nga miin ko ñu fi indi an yi di xale yu jigéen yi koy séddale ànd ak maas mi Seyda ñi ngi lay wax ne ñooñu sax ñun miin nañ leen ndax koo nekk di ko gis pendant deux mois mu lay indi lekk di lay indil añ ndékki te léegoo léeg ñu bett leen sax oote ndax euh, taalibe yi bu ñuy ñëw du ñuy yëglu léegoo léeg nga toog rek benn kaar wàcc bu buñ jàqee rek dañ naan nañ bu buñ ko ooyee rek mosuñ koo oote yàlla dimbalewu ko mu am solution loolu ñu ngi la koy seddal yónni nga fi ay ndaw yu mat yónnantu wax dëgg yàlla am ñoo ñu ngi la koy seddal muy xale yu jigéen ñiy seddale ak moom mii di leen jiite mosuñ koo oo mu yónni xale yu jigéen ñi kese te àndut ak ñoom kon loolu ñu ngi la koy seddal di ko seddal mboolem fédération bi nga xam ne ñoo aju ci Saron wax dëgg yàllaam liggéey bi jàpp nga ci jàpp boo xam ne tey mën nañoo wax ne bu amee promotrice promoteur bi Baye Ciss la waaye bu amee promotrice yow la ndax wax dëgg yàllaam lu ëpp téeméeri nit ak nangam bët bu set nga jox leen añ reer ndekki gratuitement loolu ku amul ma mahabba ci Cheikh Ibrahim Niass mënu ko. waaye loolu yàlla boo ko ñàkk mukk ñu ngi kontaan bu baax tey amuñ ay kàddu yu rëy yoo xam ne dañ la ko mën a tatagalee ba jox la sa daraja ci liggéey bii nii ndax président Baye Ciss oo oh na Cheikh avant ngay ñëw wax ko ne ko bu accès na ngeen ko recevoir recevoir bu exceptionnel lu exceptionnel ci tubaab nag mooy loo xam ne lu lu jéggi dayo la bokkul ak recevoir bu simple luñ jagleel la exactement donc ñu ngi lay gërëm ci turam ci turu sëriñ bi toog Cheikh Mouhamed Siraji Dine danañ jox suñ papa Cheikh Jéeri mu sànni ci ay kàddu wax dëgg yàlla am gërëm la ñaanal la ndax ñun lottu nañ ci gërëm la waaye xam nga ki ngay defal mosoo tànkam lu ci liggéeyal bàyyi du bii rek bu ziyaare amee buñ déggee sa soppi Mawlana Cheikh Ahmed si Cissé jigéen ji ñuy njëkk a dégg yow la loolu nag yal na la yàlla saxalal nga di ko def yàlla yokk sa mën-mën yokk sa am-am tàggatal la say taalibe ba li nga bëgg ci ñoom nga def ko liggéey bi itam rëccuwul li nga ko doon dénkee Kër Maay Ibra ndax tey dëkk bi yëpp mboolem muqaddam yi ci Sénégal yëpp soppeeku nañ nekk maa Ibra Fall ngir lan liggéey bi mën a àgg ci jàmm ñu ngi gërëm bu baax taalibe yëpp ñi nekk ci biir ak ñi nekk ci biti ñi bëggoon a ñëw te ñëwuñ ñi mën a ñëw ba ñëw ñëpp ñu ngi leen di gërëm di wax rek plateforme Wave yi ibbi na ak Orange Money bi président ci boppam wax na ne mi ngi recevoir ci 1000 francs yi koy taalibe yi dugal bu baax a baax a loolu oo na ma téléphone léegi ne ma biñ publicité numéro bi ak matagu 10 minutes li ma ci jot mënuma laa wax ñaata la ci ay millions kon nag taalibe yi dégg nañ oote bi nañ continuer ndax mbaar mii buñ paree ci coulage bi nii finition bi moo gën a métti ndax liñ def nii ci suuf nii danañ ko def ci kaw dana am ñaari suite yoo xam ne benn bi xalifa bi moo koy moom benn bi imam bi dana am ascenseur bu leen éegal ci kaw dana am salle de conférence boo xam dana jël plus de 1000 personnes te dafay ànd ak ay chaise ak climatisation caro yi moom déjà jënd na ko jëlee ko Égypte barki démb wàcce na fi 10 conteneurs yi caro tukki na te ñun xam nañu li tax mu tukki yëpp lii la maanaam finition bi bëgg a jéppal xalifa bi ak taalibe yi lu exceptionnel loo xam ne mosul am ci Sénégal moo tax mbaar mi daal bu yeggee taalibe yëpp danañ kontaan kon fi mu egg nii ñi ngi ñaan buñ paree ba dugg ci deuxième phase bi niñ bëbbee nii ñu bëbbee waat ko ba yàlla dimbala balaa déwén nga xam ne day dafay sotti mat sëkk bañ sumb leneen ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam barke Cheikhu Tidiane ci barke Baye yaa rabbi allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam alhamdulilah wa barakaatu mbokk yi fi teew ngi sant yàlla di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa di jël suñ ziyaara jëmale ko ci xaadimul umma cheikh mouhamadul maay cheikh ibrahim ñas di ko teg ci loxo Cheikh Sirajin ibnu Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass pour mu jottali ko suñu ziyaara ñu ngi jël suñu nuyoo ak suñu ziyaara ak suñuy ñaan itam di ko jëmale ci suñu mbokk al imaam Cheikh Tidiane Aliou di ñaan yàlla may ko tawféex ñu ngi sant yàlla wax ji du gudd ndax Seydi Aliou yaakaar naa li mu wax ñambaas rek la ci nit mën a def waaye keneen mënul ci teg leneen waaye wax naa ko léegi ne président Baye Ciss mi nga xam ne moom lañu fi teewal ñëw bi lu rëy la ci moom démb ci guddi la ma njëkk woo ne ma Seyda nen na Thiam day dellu si pour dolli ca lam joxe woon bu ñëwee yow laa bëgg nga teew fa na nga récupérer xaalis bi jëndal ma ci matériel boo xamante ne bii dafa jëm ci liggéey suba bi loolu moo tax ci suba wax nañ fii waaye man ma xam li ma xam rek ne tekk a ah, sa ñëw fii lu rëy la ci ñun ndax comme ñi ko jiitu waxee rek yaakaar naa bu fekkee ne projet bii am na supporter numéro un yow la am na ñoo xam ne dañoo dem ba gëm ko ba gis ko ñu soog koy gëm yow nag keroog ba ñuy def délégation di ñëw sa kër waxi kese rek lañ indi booba peel wala jalab suuf wala dara nekku fi nga dal di jël engagement ca saasa ne dinaa ci ànd ak yéen ci tàmbali bi ba ba muy pare tey it ñaan naa leen lépp loo xamante ne lu jëm ci mbiru lekk la muy ñam man bëgg naa ko jonjoo xam nga nit dinay def loolu sax waaye buñ demee ba ca jëf ja mu toqi waaye yow ci wàllu qualité bi ñam yi ci wàllu quantité bi masta dellu gannaaw gàcce ngaalaamaa maas ak ñi ngi ko bàttaleet xam nañ ne jógee nga fi dem màkka bëri na ñoo xam ne buñ xasee wane ginnaaw la nga dénkaane woon nam daan demee ci sa kanam du ko demee waaye masta dellu ginnaaw loolu ñu ngi la koy seedeel président Baye Ciss mu ne sant na la gërëm na la te xam na ne jëf jii nga jëf wallaahi su Baye amoon fukki taalibe yu mel ni yow kon ca dëgg-dëgg mbir yi dana demee neneen waaye nag alhamdulilah ki tax ngay jëf muy cheikhul islam alaaji Ibrahima Niass moom jëf na jëf ji te xam na ne dana ko fayanteeg yow ba ëppale la Seydi Aliou wax na ko muy bési kan maam Cheikh Ibra Fall ñu xam mu toll ci yow fi nga jaar ak moom ak li mu doon ci yow kon li bettewut bu dara xew doon sax xam nañ ne buñ ne bési maam Cheikh Ibra la danga nga teew kon ñu ngi sant ci turi mboolem ñi nga xam ne ñooy jàppale président Baye Ciss ci turam moom di wax ne ca dëgg-dëgg ñu ngi sant ñu ngi gërëm. te rafetlu nañ jëf ji incha allahu lépp loo xamante ne lii luñ mën la si jotal ko fi mu war a yegg dinañ ko fa yeggale xamale ne def nga loo xamante ne kenn defu ko waaw def nga lu kenn defut ci projet bii ndax comme ni mu ko waxee ay weeri weer ngay dundal téeméeri nit ak lu ko ëpp suba añ reer ak ndekki ñi ko mën bëriwuñ ñi ko mën ta nangu ko it bëriwuñ yow nag alhamdulilah mën nga ko yàlla may la xol boo ko defee ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm yal na yalla nangu jëf ji yaara bi waxoon nga ñu lo xam ne it olof ñu ne ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer nga war ko gëm kërok bañ toogee da nga ne lima ci def dé duut lo xam dama koy def ben yoon mu jeex wala ñaar yoon mu jeex maag yeen la fek projet am muy neko projet bay man sama tank ak sama taxaway da ngeen ko ji gis ak sama loxo lolu ci deug deug deugal nga ko ñu ngi sant ñu ngi gërëm ya xam li nga yene ci diina ji ci tariixa bi ak ci pey bi yalla la ko yalla defal foo bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggale sa mbëggeel ci bàyyi yal na ko yàlla ful bët bu set yaara bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm kaddu yi daal fii la mën a yem ndax làmmiñ lott na ci wax li nga xamante ne moo nekk ci suñ xol te président Baye Ciss def ñu ko nañu pour ñu gërëmee la ko santee la ko wasalaam jërë ngeen jëf. damay wax toujours ne euh, gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di mi nga xam ne moo ñu may teraanga bii teraanga bii mooy lan mooy ñu jël ay millions yu bari di defar mbaar moo xam ne kenn taxul ñu koy defar ku dul yonent ci àll muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag li muy tegtale ak li muy dëggal mooy na bàyyi lam ne woon ba léegi ci la nekk mooy na moom ba léegi mooy xaritu yonent bi mooy soppeem mooy léppam wax naa ne nag teraanga ji képp ku yàlla dimbale nga man cee def nga xamal ne ku la yàlla ko nit nga ko xam ne yàlla bëgg na la ba nag seydaa sa jëf ji ci bàyyi ñun bettuñu ndax xam nañ la xam nañ yaay kan xam nañu lan mooy sa bëgg-bëgg xam nañ lan mooy sa mbébét xam nañ ko ci pay bi xam nañ ko ci yow waaye man damay wax toujours na rek man dama lay bàyyeeg sa sëriñ loolu rek laa lay wax daa iman bàyyee naa la ak sa sëriñ mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu yàlla la yàlla fay yàlla na la bàyyi fay yàlla na la bàyyi fay teraanga bii nga defal bàyyi yàlla na la ko bàyyi fayal boppam bàyyi waxoon nañu ne laa ujaasil ihsaana bi nisyaan ku ma defal lu baax rek duma la fayee fàtte te xam nañ ne bàyyi du la fàtte mukk ba ilaa yawmal qiyaamati bon ñu jàng faatixa ñun ñëpp te jéego salaatu faatixa ñu ñaanal suñu bopp ñaanal Seyda gërëm ñi nga xam ne aussi ñoo jiite liggéey bii muy bàyyi siis ak mboolem ñi nga xam ne ñi nga ànd ak moom bismillah aoudu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 Euh, njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim gi mooy commission bi fi eh, Baye Ciss bàyyi si njiital eh, Cheikh Siraji Diine ñu ngi koy ñaana yàlla fan bu gudd ba ànd ak wér ak ñi si ajiwu ñëpp kenn ku si nekk rek bu jëlee kaddu da nga naan tey kii rek moo xam say xayaa nee na jaam kon dëgg-dëgg tey mbégte la si képp koo xamante ne rek tey taalibe ñu ngi lay ñaana yàlla fan bu gudd ba ànd ak wér ni ma koy waxee rek mooy ki nga xamante ne nii référence la si lépp loo xamante ne rek njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim bi ñu ngi say rek ma ngi sa kon euh, tay dimanche mu yembot euh, juróom ben fan si wéru août euh, nek di ñaanal yalla fan bu gudd bu and ak wér khadimul umma Cheikh mohammedul Mahi yalla yalla yàlla ko fan bu gudd bu and ak wér cër bi nga xamantene ni yang ko ko cërale Cheikh yaa ne caam mu jagleel kep ku yeewoo fi rek ci liggéey bi ni mu gadul la añ bi ak reer bi yalla yalla yombal ko ko wa yalla yalla yokle ko ko ci fan bu gudd bu and ak wér dimbale ko yaawal yel taxaw bu baax baax euh, équipe bi nga xamantene ni ñoko euh, saxo deug deug tay xidmal sa serigne euh, yomb na yombut waye ñiko saxo saxoo yalla yalla ma ñaan may fan bu gudd bu and ak wër kon si kaddu gi Seydina musa bi tey dañuy daal di ànd ak yeen rek delu wat delluwaat wat Cheikh Yahya Thiam mu wat ci makkaan ba nga xamna nañ mom moom ak yitem yëpp rek mooy liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim Euh, macha allah gis ngeen ne image yu am solo yi nga xamante ne nii dëgg-dëgg histoire ëllëg dana ko nettali Seyda gannaaw bu mu génnee rek dafa def directement fi nga xamante ne nii moo nekk fële ñi gaasee ndax ñu mën a xam jërëjëf mbokku internet yi mbokku téléspectateur euh, Kossy TV say ne na Thiam moo nekk noonu ñëwoon andi addiya boo xamante ne ni ñëw na ngir euh, ziare ko Mawlana Cheikh Islam Hadji Ibrahima Niass waaye loolu desut mu delluwaat fa nga xamante ne nii fa la si mu dem fa euh, si suuf si ñu jox ko mu ñaan si yàlla yàlla def si jàmm def si tawfiq kon képp Aliou Guèye waxtu wi ñu toll nii tembe rek lii mu am fi la nga moo nekk fii ci euh, Cheikh Nene Thiam waaye ñu fas yéene ànd ak moom gunge si PAO si sëriñam si kër sëriñam si nekk sëriñam di Mawlana Cheikhul Islam Aji Ibrahima Niass Baye kon mu ngi noonu di dugg si nekk Mawlana Cheikh Ibrahim te Mawlana Cheikh Ibrahim di ko ñaanal yàlla yàlla dafa ko jàmm dafa ko nag moom kenn ku nekk xam na ne Cheikh Nene Thiam dem si mbooloo rek. nii la jaam yàlla yi di mel si moom ruuxu yi nii la ñu bëbbee jublu ko lii yëpp nag euh, kon nañ tàllal loxo yi waxtu ñu toll nii mu ngi ñaan yàlla ndax mbooloo mi takku na takk goo xamante ne nii mënut a egg sa biir ngir euh, ma def lim def waaye moom fu taxaw rek mu ngi siyaare Mawlana Cheikh Ibrahim kon dëgg-dëgg mbégte la kontaante la. tàllal leen loxo tàllal leen loxo yi tàllal leen loxo yi. tàllalal loxo yi téemaat macha allah mooy ki nga xam ne yàlla dafa wàññi ak mu jëm ndam ndam yi te li kenn loolu dara dafa nekk pétrole lay soxla ne leen ngeen yokk pétrole mais du kenn sëriñ Mbaye mooy ci côté Ndeye Dior di nii ci côté Anta Ndeye Ndiaye nii dafa nekk soxla nañ ci ñoom lii la liggéeykat yi waxoon daal dañuy ñëw tey newoon na kenn ku ci nekk xaalis bi day laajte. ñëwal ñëwal ah man la la. maam Ibrahima Fall waayu bay la Ndeysaan Kaay ma kaay ma eh Pera non damay la ko mu jël image bi eh. may ko mu jël الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما يقول جلبة بلتك بلتك بلتك إيمان لا يجلو الله الله أكبر الله الله أكبر الله سجل سجل سجل سجل الله الله الله الله maa eh? kaddu gi sedd na Moussa bi te ci camera bi Vieux Diop sedd na Aliou Guèye yembal bi la liggéey kon euh, kaddu gu mujj gi rek mooy sayxa def naa tey am nga mbégte bu baax a baax ak contentement si ànd bi nga xamante ne ni ànd nga ko sa télévision bi Kossy TV ban mbégte rek moom nga am tey pour tàggati ko ko ak. Euh, Euh, télé bi waye timit ak aduna bi nga xamantene ñu lay baye xel même bu dee ñetti minute sax euh, gërëm nañ sant nañ ndax dëgg-dëgg boobu ba légui rek sa taxaway ñu ngi ci am bu baaxa baax. di ndokkeel jëliti aduna bi yëpp. jiital khalifatu amuy sama papa Cheikh Mahi Ibrahima Niass. di ci tek porte parole bi di tek kilifa gi nga xamne moma recevoir ak njabot gi yëpp moy Cheikh Siraji dine di ci teg mboolem. jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñëpp maa ngi leen di leen ndokkeel di ndokkeel Baye Ciss mi nga xam ne moom la xalifa di teg liggéey bi ci loxoom. wutu ko ci liggéey bi tey di ci teg mbooleem jabootu baay gi nga xam ne ñoom laa fekk ci saal bi di ci teg kilifa diine yëpp di ci teg mboolem koo xam ne jullit nga rek bis bi sa bis la parce que tant yonant boo xam ne bu mucc ayib lay doon boo xam sant bu baax gërëm ci njaboot gi nga xam ne ñoom laa fekk bi man njaboot gi yëpp sumay njaboot lañ jaamu yàlla yëpp sumay njaboot lañ ñëpp sumay soppe ci bàyyi waaye rawatina njaboot gi nga xam ne bi ñoo jiite liggéey bi nga xam ne ñi ñi ngi jóge koo ci dëkk yu sori yu fasanti ko ñëw nekk ci boobu ba léegi jiite liggéey bi ñoom itam maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm euh, média yi nga xam ne ñi ngi def seen liggéey ci xadara bi ñi nga xam ne jot si wuñ tey Sénégal ñoom ñoo leen koy jotal ba nga xam ne danañ mën a góor góorlu xam ne liggéey bi ñun ñëpp ko rawatina ñu boole ci njabootu sama maam Maolana Cheikh Ibrahima Fall kër sama maam Ibra Fall nga xam ne sama maam Ibra Fall léppam moom mës sa bëgg dara mus a ut dara mës sa am toolu boppam mës a am doomi boppam mës a am alali boppam moom lépp am bàyyi la bi ko bàyyi laajee Ibra nga bëgg rek mu a ko yow laa bëgg yow bàyyi yow laa bëgg kon loolu tegtale la ci tey ñëpp fi daje waaye ñëpp tey ñoo bokk ci xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahima Baye radiyallahu taala parce que am nañ sëriñ bu mat sëriñ ku am sëriñ bu mat sëriñ da ngay bàyyi moo ñu jëlee ci lëndam indi ñu ci leer Baye moo ñu jëlee ci ñaxam indi ñu ci xam Baye moo ñu jëlee ci moo ñu nuurloo ci jëmm yàlla ji nuurloo ñu ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuurloo ñu ci jëmm Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ba pare xamal ñu yàlla ba pare teg ñi ci yoonu mu mustaqim muy yoonu njub Baye mu ne suñ bis la ñun ñëpp ak mboolem kuy taxaw Baye rek tey bis kon maa ngi ñaanal kullu julli Baye dafa jubóog boromam ñi ngi gërëm di sant bu baax di gërëm pay bi yëpp maa ngi gërëm pay bi yëpp pay bi képp koy yëkkati boppam rek maa ngi lay gërëm maa ngi gërëm kilifa diine yëpp maa ngi gërëm mboolem koy jullit parce que liggéey bu njëkk bi gis naa euh, murit yi mobilisé wu ñëw ci liggéey bi waaw diina la ñuy liggéeyal tantu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy liggéey ko amul frontière yal nañ ànd ak gërëmal baay yal nañ ànd ak ngërëmal baay yal nañ ànd ak ngërëmal baay Seynal maa ngi gërëm na jaay yëpp tey ñu teewoon ci saal bi ak ñu nekk ci dugub bi ak ñu nekk ci liggéey maa ngi gërëm parce que ku ci nekk rek waar na ci tool ba fayante yéen di wax ne jëf euh, mbokk internet yi mbokku téléspectateurs yi kon ñoo nga dëgg dëgg jeex na tàkk fi la ñuy emandi ak yéen kàddu gi nga xamante ne nii Seyda yëkkati ne ko doy na sëkk sant na gërëm na ñaanal na yàlla képp koo xamante ne rek jógee ko nga ak foo mënta jógee koo rek mu ngi lay ñaana yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér waaye ñun tamit ñu ngi koy ñaanal suñu làmmiñu bopp yàlla dafa ko taw feex dafa ko fan bu gudd ba ànd ak wéram bés bu set waxtu wu nekk ne bu nekk rek yitteem yëpp moo nekk tey grand travaux bi egg si jàmm yal na yàlla may ko ko si saayir ak si baatin kon ñu ngi kontaan bu baax a baax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf allah barahama Baay Ñas lañ bëgg wax leen allah barahama Baay Ñas lañ bëgg Baay allah barahama Baay Ñas lañ bëgg Baay allah barahama Baay Ñas lañ bëgg Baay Ñas ñun lu ñu mën a am Baay Ñas lañ bëgg waaw waaw ñun lu ñu mën a am Baay Ñas lañ bëgg Baay ñun lu ñu mën a am Baay Ñas lañ bëgg Baay ñun lu ñu mën a am Baay Ñas lañ bëgg waaw docteur xool yi Baay Ñas lañ bëgg barahamay borom jamono Baay Ñas lañ bëgg Baay doktooru xool yi Baay Ñas lañ bëgg Baay barahama borom jamono Baay Ñas lañ bëgg Baay Ñas bàyyi ñu naandal Baay Ñas lañ bëgg waaw bàyyi ñu naandal Baay Ñas lañ bëgg Baay Ñas bàyyi ñu naandal Baay Ñas lañ bëgg waaw bàyyi ñu naandal Baay Ñas lañ bëgg waaw waaw ñun lu ñu mën a am Baay Ñas lañ bëgg Baay Ñas lu ñu mën mën a am. Baay Ñas lañ bëgg. waaw waaw ñun lu ñu mën a am. Baay Ñas lañ bëgg. waaw waaw ak lu ñu mën a doon. Baay Ñas lañ bëgg. Baay Ñas bàyyi ñu naandal. Baay Ñas lañ bëgg. waaw waaw bàyyi ñu naandal. Baay Ñas lañ bëgg. waaw waaw xam yàlla ñëw na. Baay Ñas lañ bëgg. moo tax lambatu jeex na. Baay Ñas lañ bëgg. dëgg la xam yàlla ñëw na. Baay Ñas lañ bëgg. moo tax lambatu jeex na. Baay Ñas lañ bëgg. yéenay ay Faydu Baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama ñu leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV